seen ñu bëgg a yegg. juin 2019 la tàmbali woon lii sumb bëgg sa réew lalu woon ci xalaat bu sell njàngale muy jariñ askan bi yépp ak royukaay bu ñépp nawloo tey mooy dox ba weesu suñu ay njort def lu bees jàngale. démb sunu taarix bu ñëpp bokk mooy na ci lu mbokk yi seetaan uh, ci Sénégal uh, ak ci diaspora bi Euh, ñu dellusiwaat fii tey dimanche bi ak euh, Jotna TV di euh, l'invité du dimanche Nous ñu am thème un peu social avec sunu ay jigéenu Pastef yu nekk États-Unis su si kanamee dinañ leen dinañ joxe seen donc ma Aïcha Touré Marie-Jeanne euh, du ay membre euh, euh jigéenu Pastef États-Unis ak tamit euh, Fama Diaw tey donc ñu ñew indi len waxtaan ci euh bërëb boobu ñuy tuddee la pouponnière Lamine koulibaly ba nek ca Kaolack xamna euh wa Pastef fi xëy na xam nañu tuuti ci pouponnière euh ndax euh, implication bi ci député Ousmane Sonko am donc pouponnière bobu nek Kaolack pour ñiko ko xamul euh, député euh, Ousmane Sonko bu Pastef daf leen di jappelé depuis bi mu député dégon ngeen ko muy wax nek que liñ koy fay ci taxawayam ca pencum réew daf ko xat ñet té ben bobu mi ngi jox ba ngir euh, jàppale leen euh, dimbali leen ci liggéey bi ñuy def ci aar tout tànk yi euh, yiñ leen di dénk foofu kon tey waxtaan bi ñu tek mooy pour gën a xam pouponnière boobu liggéey bu mucc ay bi muy def bu am importance ci askanu Sénégal ak ci aar tout tànk yi nekk ci biir kër gi yi nekk ci ay jafe-jafe wala seeni njaboot nekk ci ay jafe-jafe te ñu soxla wallu waa Mojib États-Unis nak am initiative extraordinaire pour pour ak initiative yi ñu jël pour ko euh, euh, pour que tamit patriotes Sénégal ñëpp ñu de ci euh, fessel liggéey bi pouponnière bi di def ku nekk tamit li mu am li mu mën mën a jàppale pouponnière boobu ngir mu mën a jëm kanam ngir mu mën a continuer di recevoir ay xale yu nekk ci ay jafe-jafe ay euh, bébé sax la ñu war a wax ñoo fay ñëw ndax euh, demande bi bëri na Euh, jéggi na dayoo te du ñëpp lañuy mëna toujours di accueillir fofu wala di len defal li war ci ñom donc euh, pour commencer euh, ma nuyu Aïcha Touré qui est responsable communication Mojib Mojib du mouvement Djigenou Pastef bu nekk États-Unis soxna Touré ma ngi lay nuyu ma ngi lay dalal ma bàyyi la nga nuyoo ak ni ñuy déglu. wa merci Aïssatou ma ngi lay fay. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa sekkal waxtaan bi ñi ma ko bokkal muy soxna Marie-Jeanne di suñu sœur boo xam ne dama ko dupe la lionne de New York ndax engagement am si liggéey bi en général may nuyu également soxna Fama moom it di benn gaynde gu jigéen gu nekk fële si Kaolack di def liggéey bu am solo si jigéen ñi maa ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi ñuy seetaan euh, si direct bi donc euh, merci beaucoup encore une fois euh, soxna astu si waxtaan bi nga xam ne maanaam yaa ko yaa ko du moins si yow yaa si maanaam yaa ñu ci euh, yaa dox suñu diggante daal si waxtaan bu am nga nga indi Aïcha ma bàyyi euh, Marie-Jeanne euh, moom mi présidente Mojib moom tamit mu joxe ay nuyoowam balaa ñuy Marie-Jeanne sa micro Marie-Jeanne merci ma sœur maa ngay nuyu yow ci sa Euh, nuyu euh, ñëpp ñu nekk ci euh, ci biir plateau bi ah, di ñaan yàlla lépp ñu fiy wax li ñu fiy wax rek mu jot ci xolu nit ñi ndax li ñuy wax tey am na solo lool lool lool lool maa ngi nuyu kii ni ko Aïcha waxee suñu jàmbaar bi nekk Kaolack mi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi admirer liggéey bi muy def ndax ku am doom rek xam nga ne metti na pour toppato benn sakatu ma nga am ci ay yu bari bari bari yo xamne da ngay nek responsable donc vraiment maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñë di nuyu ñepp ñi nga xamne dinañ ñu seetaan tay te di ñaan yalla rek lepp ñu fi wax fi rek mu mun a jëriñ askan bi merci beaucoup Marie-Jeanne kaddu yi rafet ñu euh, dem euh, ba Kaolack euh, cette euh, femme Diaw mom moy gérante pouponnière bi ñu la pouponnière Lamine euh, Fama yow la denk les lépp lu être ci doxal pouponnière bobu ma ma Bay la nga sunu internautes ni ñi suivre. ce micro.

jërëjëf jërëjëf dinañu dellu si waat euh, ak yow euh, su si kanam mais xam naa ne que réseau bi Sénégal xaw xawul stable noonu donc dinañ jéem a gaawal euh, mbir yi ñu leen di perdre donc balaa ñuy gën a xuus ci biir waxtaan bi dañ leen bëggoon tegal benn élément vidéo bu leen di benn petit reportage sur pouponnière bi ndax ngeen gën ko miin gën ko xam xam liggéey bi ñu fay def et puis après ñu dellu toog soog a sumb waxtaan bi euh, Régis soo ñu mënee lancer l'élément bi merci.

Euh, indi fi don boo xam ni euh, Pastef USA euh, ñoo ko joxe muy wa États-Unis euh yabal ma fi nag en tant que njit pour ma joxel len ko ma am ci mbégte lol ndax da fay lo ne saa yu ma ko suma xol daf ci sedd ndax pouponnière bi dafa am histoire histoire bi sunu leader muy le président Ousmane Sonko moko tambali bint, djelon engagement ne à bu jot dana le tiers de son salaire euh, ba mu député ñu le dernier virement muy lo xamné nak euh, sam mon xamné la dafa sauver ay ay vie muy ñu fekk fi ñu def dañ koy nañ du ben du ñaar du ñett du ñent ñaata fi waaye toujours di ànd ak de bonne volonté sinon ñëwal sama bopp mais di wax rekk ni jigéenu Pastef gàcce ngaalaama ñoom ñoo ci jël raw gàddu ndax bu weesoo waa Belgique sax ma sali jiba à chaque fois moom it mu ñëw Sénégal dana indi ay conteneur yoo xam ni lii dem ci pouponnière bi daf koy ber waaye di wax rek ni aussi yeneen jigéenu Pastef yi ñu wel ni waa Italie taxaw nañ fi ak ñeneen ñoo xam ne xëy na Euh, parfois dañ koy def euh, naka lañ koy wax dans l'anonymat mais jigéenu Pastef euh, États-Unis ñoom macha allah du ben du ñaarit du ñett ma ci profiter di remercier au nom de la pouponnière mais surtout di féliciter soxna Aïcha Touré mi nga xamante mo moo responsable États-Unis mais aussi soxna Marie-Jeanne Diouf mi nga xamante moko moo ci euh, liguey bi nga xamante mom lañ ko denkon ci côté jigéen ñi kon di wax rek ni euh jigéenu Pastef États-Unis gàcce lama ndax lii ñu joxe ah madame Diaw muy euh, un chèque symbolique de un million cinq francs bok na ci li nga xamante mom lañu joxé fi ndax euh, amna nuñ ko nuñ ko nuñ ko tënkee lenn li en nature pour couche c'est 50 ballons de couche pour les enfants pour les bébés ndox yi c'est 200

yal na leen yàlla fay yiw ndax yàlla loo ko lebal mu fay la ko loolu yàlla moo ko wax man yaxmal misqaala zarratin xayran yara yal na yàlla fay yiw bu baax a baax a baax a baax waaye taal di leen wax ni lii nag waaw lu ndaw la rek loo xam ni ñu ngi koy mottali pour voilà muy motivation ndax euh, mérité nañu lu ëpp loolu. pouponnière Lamine Coulibaly bu Kaolack ab fondation espagnole bu ñu Espoir Uni Moko ko ci atum 2011 ngir mën a dimbali wayjur yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ba tax na mënuñu toppatoo njaboot gi. pouponnière bi ñu ko créé depuis avril 2011. par ay bénévole espagnol ñoo ko fi ëpp woon pour jàppale xale yi nga xam ne seen yaay dañoo génn àdduna seen papa yi néew doole xale yi nga xam ne dañ leen a sànni xale yi nga xam ne seen yaay dañu am feebaru xel ah pouponnière bi ne depuis lors ñoo fi ñëwoon ñi fi nekk di leen jàppale espagnol yi ko ubbi woon na ñoo amatul doole mënatuñu assurer 100 pour cent 100 pour cent charge bi ba tax bon volonté yi ñoo ñuy jàppale ak association ba xale yi mën a nekk si bonne condition ci fàttali njiitu parti bi di Pastef les Patriotes di Ousmane Sonko moo njëkk boot xale yi pouponnière bi gannaaw ba muy wàññi ci salaire u ma ngir mën leen wollu niki noonu la jigéenu Pastef yi bàyyeekoo fële ca États-Unis daal lay jàpp ci boobu initiative ba tax na at mu jot dinañ amal ay collecte de fonds ngir mën jàppale pouponnière bi ci dundu tuuti tànk yi nimbal yooyu le ñu ko dénk kii nga xamante responsable Mojib national ngir mu mën ko jébbal ki nga madame Diaw responsable Lamine commencé le président Sonko depuis la kër di fayee di nekk te génne wuñu amuñu arrière ndax moo ma tax parce que moo ñuy fay location chaque mois mu yónnee ñi li nga xam ne moom la ñuy fay location kon nag ñu ngi koy gërëm moom si tànkam nag la ñeneen ñi jaar ku si mel ne taamee mu ne jéem mi duñ na guleet si moom min na kër gi xam na kër gi yàgg na fee jàpp di remercier nag Pastef bu Kaolack bii ku si mel ne ki fi nga xam ne moo fi teewal waa Kaolack yëpp muy Ilimane ñoom jur Fall ñoom Tata ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier ñëpp a ngi siy jàpp du ma fàtte nag diaspora bi

dundee ci biir pouponnière bi ak niñ leen di toppatoowee. waaw ah, pouponnière bi moom activité yi nga xam ne moom la ñuy mën a buñ xëyee suba ba ngoon li may njëkk a wax mooy ñaari groupe moo am am na groupe boo xam ne suba gi li ñuy ñëw 8 ba 20h si ngoon ñeneen ñu gont 20h si ngoon ba 8h du matin. kon ñaari groupe la ñoo nekk ci pouponnière bi am na tamit de femme de ménage benn kenn ci kaw kenn ci suuf am na tamit deux cuisinières kenn day liggéey lundi ba vendredi kenn nekk euh, samedi dimance am na tamit benn gardien nuit ak une responsable ak vingt 22 personnels ñoo fi nekk 22 yooyu nag yaa 12 euh, publicitaires ak li euh, si des ay bénévoles ak gardiens yëpp moo tax au total muy 22

8 tété par 24 heures la xam nga ne bu bu chaque 3 euh, heures de temps ñi am tété bu dé xalé de 0 à 3 mois tété à volonté la koku mom su xifé tété à volonté da am heure mais au delà de 3 mois ba 6 mois 8 tété par 24 heures la 6 mois ba 9 mois 6 tété par 24 heures au delà de 6 9 mois il y a 4 tété par 24 heures mom lañuy wax agn rer ndek ñogonolu ñoon ñi wacc ci fofu lañ tollu mais tay bébisteur bu ñu ñëw ci suba gi ñasa dañuy dem sang ñasa kaw bu ne sangé may dañuy leen dañuy ndékki ba pare bu ñu leen ndékkee ba pare sang leen ba tëral leen si lal bi nag ñoom tamit ñu profité le temps ñu profité jël seen petit déjeuner balaa heure bi parce que xale yi bokkuñu heure am na ñoo xam ne tata à volonté la ne 8 par 3 ne par 4 ñi si suuf tamit bu ñu xëyee suñu ñëwee fekk ñi si guddi gi balaa ñoo wàcc si suba gi ñooy sang ñi si suuf bu ñu leen sangee bañ set yóbbu leen si biir ñun bu ñu ñee 8 dañ leen di jox ñu ndékk bu ñu ndékkee ba pare salle de jeu baa ngi fii ñu ñuy fo en attendant ñii di ndékki ñi nekk ci xalé yi bañu paré pare su midi jotee si lañuy ñuy añ ñi ci souf buñu ñu midi dem tëdd sees bu ñu seesee ba 4 h jot ñu génn jël seen goûter goûter bi nag ça varie chaque jour ak lañ leen di jox goûter buñu ñu seen goûter ba pare génnaat salle de jeu fekk découché nañ leen dañ leen di découché buñu ñu ba tëdd buñu ñu 16 h tamit dañ leen di découché waale bu leen découché waatee indi leen salle de jeu bu ñëwee salle de jeu tamit ñu fowaat di fo di fo ba 18 h et demi ñu duggal leen pour mën préparer wu pour équipe du soir bi ñëw guddi ki tamit heure te tey tamit ñoom dinañ xam heure yi mi ngi si emploi du temps bi guddi gi tamit bu ñu ñëwee xaj na du am activité manuelle parce que guddi xale yi dañuy nelaw mais am nañ seen heure tete heure découchage heure boo xam ne xale bi dina jóg ñu làmb ko bu puubee si guddi ki wala su fekkee kii na jot na heure am jot na daal ñu defal ko liñ ko war a defal loolu du mooy activité pouponnière bi yaa ay bénévole yoo xam ne ñoo ñuy jàppale babysitter yi ak euh, Euh, ñu koy waxee femme de ménage yeeg cuisinière beeg ñooñu mooy ñi nekk fii. ba tax na mënees neen jàpp ni li yokku tax ñuy mën a wéy di toppatoo gone le bokk na ci ñuy wéy di jot ndimbalu bon volonté yi. di kontaan di remercier képp koo xam ne mu ngi jàpp si pouponnière bi parce que am na ay association ay fondation ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi jàppale pouponnière bi xale yi di mën a nekk si bonne condition di leen ëlbatiku rek di leen tàllalaal loxo di wax ngeen doon suñu ambassadeur parce que ñun doon bi mën nañ ko eh, yokk si kaw kenn ku ne japp rek pouponnière bi meuna jëm karam ñi ngi leen di talal loxo di leen wax pouponnière lami Coulibaly daal mi ngi fi di soxla ndimbal pour ñu jappalé xalé yi nga xamné li leen dal jomul kenn man mi di wax sax kenn xamu sama suba kon képp ko xamné japp na ci rek yalla mo lay fayal bopam inshallah ñi ngi leen di talal loxo di leen wax ngeen jappalé ñu yalla fayal leen bopam jappalé leen fay leen ko ay tiyaba yi béré béré jëf ji nek li nga xamanté ni ñu rawatina membre pastef yi fofu ci kaw lak ku ci melni Eliman di xamlé ni li dafa mengo ak li nga xamanteni mom moom la ñuy liggéey ci biir PASTEF muy dimbali néew di doole ji. di rafetlu encore une fois la présence de la coordinatrice Mamadou Dieye mu nek lo xamné ne gulet c'est pas la première fois mais na ri comme ni nga waxé diko diko remercier encore une fois ak les lingères de de Pastef di remercier aussi euh, les donateurs yi nga xamné ñoo joxé loo bi euh, di di rafetlu vraiment cadeau yi ak. Euh, de comprendre aussi qu'ils ont compris très tôt l'engagement le, le Ousmane Sonko moom mooy euh, bi muy ñëw fii ci pouponnière bi ak euh, ni mu ni ni muy joxee pouponnière bi gëdd ba euh, ba respecté li mu fi waxoon biñ dem dem dem ba ay militants ñëw bay def lii ci ci kër gi vraiment ils ont compris mën naa wax ne loolu moo nekkoon bëbëtam donc duñ def du lu rafetlu ko en tant que patriote de de Bongré en général patriote de de Kaolack waaw lu daal loo xam ne mën naa wax ne daal lu ñuy rafetlu la vraiment lu ñuy rafetlu la vraiment. donte seen doole bëriwul fukki at a ngi ni tey pouponnière Lamine Coulibaly bu Kaolack di wéy di toppatoo ay tuut tànk ak di sàkku ci seen ndimbal. Djeredjef Régit, et di remercier euh, sunu sœur euh, Aminata Sarr pour ce beau reportage Nous donnons aussi waat euh, ci biir émission l'invité du dimanche Mais lundi di fàttali ne tey ñu ngi euh pouponnière Lamine Koulibaly, bu nekk ca Kaolack ak jàppale bi ko waa bi di notamment waa MOJIP mouvement jigéenu Pastef bu États-Unis ñoom laa fi toogal euh muy Aïcha Touré euh, di euh, responsable communication vais euh, commencer avec Aisha. Aïcha nga ñëwul ñu un peu déglu nañ ko ci vidéo bi mais nga ñëwaatal ñu rek tuuti ci genèse euh lien rapport bi entre pouponnière bi ak Ousmane Sonko et plus largement Pasteur, s'il te plaît. merci Astou encore une fois me les remercier bu en fait euh, wax nga ko sank ci sa introduction amna sax information yo ñu jox euh, mais également soxna Fama si élément bi ñu gis ni mo ngi wax fi mbir mi doore mais dina doore fofu pour continuer ban lien mo am ak ñun ñi passef Mojib USA et passef en général et puis comme ning ko waxé sank rek euh, je pense que c'est le président Ousmane Sonko moom moo attiré suñu attention si pouponnière u Kaolack bi en mi 2000 2017 biñ ko falé député

ndax lam leen di jox tax na ba ñu nit comme ni ma ko waxee sànq ñu dem rek ne nañ ko feelu ndax euh, au delà de xale yi ñu doon muy des enfants yi nga xam ne il mérite li nga xam ne xale yëpp moom la ñuy mérité bu ñu sañoon ñu juddu seen yaay uuf leen jox leen amour maternel ak seen yaay biologique ñu màgg donc ils n'ont pas choisi de naître dans ces conditions bi ñu gisee loolu nga xam ne moom aussi daw na yaramam daw na suñu yaram ñu nit dañu décider soobu si liggéey bi alors qu'est-ce qui s'est passé mooy bu ñu fàttale ko en 2018 bi mu ñëwee di def euh, tournée dans la diaspora à cette époque, j'étais euh, la coordonnatrice de PASSEF USA. J'avais même pris une petite responsabilité d'annoncer, si ça m'a allocution, le jëf jooju rafet ne rafet boo xam ne ñun jigéenu aux États-Unis dinañu taxaw temm pour doon bàjjenu xale yooyu. alors bañ fa jógee euh, lu ñu c'était le 10 novembre 2018 déjà en janvier 2019 euh, dossier est sur la table. Marie-Jeanne Mingifi, Fatou Diawara Mingifi, nous avons ñu ngi élection dëgmal ay élections cotisation yu bari mais teewul nekkoon nañu benn groupe femme yoo xam ne déterminé woon nañu pour def dara juste rek pour nuyoo parce que loolu nuyoo la woon pour suñu relation ak pouponnière bi. on l'a fait et puis d'ailleurs ça, beaucoup de femmes biñ ko yëgee après dañu mer parce que nee nañu lu tax associé wuñ leen ci joxe boobu ndax loolu defal yàlla la ku defal sa bop la alors euh, biñu ñu fofu foofu it euh, Covid bi ñëw tek ci parce que dañu tegoon un plan bo xamné dañu bëgg accompagner de manière continue la pouponnière si li nga xamné mom lañu yalla ñu mais aussi ñun suñu yek yek en tant que jigéen parce que ay yaay lañu alors biñu ñu fofu foofu euh, bii nga xamné ne muju nek na bo xamné à la suite d'une demande bu wané né wax dëgg yalla sogu xalé biñu am fële dafa xawon na woyof dafa xawon na woyof bañu saisiré it nous euh, ñu def moy saisir la présidente euh, Marie-Jeanne Diouf nga xamné mu euh, réunion jigen ñu def collecte bi nga def ñu ko élément bi collecte parce que en une semaine nañ fi certes mais on avait réussi à collecter 2 millions comme ni ko millions ñu million 500 euh, ml ñu jëndé ko ay couche muy 50 balles yi ngeen gis nonu ak 200 bouteilles d'eau de 10 litres donc 1 million 500 ñepp xam nañ né budul euh, lek bi xalé yi di def dañu am yenen charge ndax fi ñu dëkk momuñu ko mais aussi dinañ jënd carburant xalé buñu février dinañ leen faj mais personnel bi aussi lu mu néw néw néw ki ñew la jappalé diñ ko jox passe motax ñu déma a ñu répartir xaalis bu noonu def ko donc jigéen ñi ma leen si remercier bu baax a baax baax et ce qu'il faut noter ici aussi mooy euh, ginnaaw jigéen ñi euh, taxawaay biñ ci am en tant que yaay euh, on a été agréablement surprise parce que ñun suñu flyer dañ ko defoon juste pour panelu jigéen mais góor yi nga xam ne am na ñu ci jot ñu si mel ni Zak ak bi biñ ko jotee dañu sóobu si ABS dugal si sa loxo ba dañ ma doon tooñ ne ma lu tax ngeen tuddee seen bopp bàjjenu xale yi te créé wu leen nijaayu xale yi. waaw dëgg la de ndax ndax affaire bi du affaire jigéen rek ndax doom yi ñëpp leen a njabootee c'est vrai que xëy na jigéen ñi ñooy gën a am fibre maternelle di bëgg kii mais yaatal ko ne nga xam góor ak jigéen ñëpp. ñoo leen mën a jàppale ndax njaboot gi xale yi ñëpp leen a yi wax na dëgg effectivement xaw nañ ñu si mere sax ma leen léegi amul problème léegi nijaayu xale yi am na te ñu ngi joxe bu baax a baax a baax vraiment am ñenn ñoo xam ne sax ay jigéen lañ ñu ngi si groupe bi mais seeni borom kër dañ ci jàpp bu baax a baax parce que Fatou Diawara mi nga xam ne suñu premier don bi ñu def moom moo ko yóbbu woon mais bon nga ko yóbboo boobu du dem Sénégal te demul jaar personnellement borom këram la même chose à d'autres personnes nous leen di remercier bu baax. léegi asu ah, ah, li ma si bëgg a ajouter fi rek moy après suñu don 2019 mm-hmm. c'était de euh, créer dafa créer belle collaboration entre ñun ak ñom donc biñ ñu suñu premier don euh, daf ñu permettre ñu gëna gëstu parce que nit boko bëggé jappalé andax mom da ngay gëstu li muy liggéey lu mu doon foo ko mën a où se situent les besoins et c'est dans ce cadre que ñun euh, gëstu nañu en collaboration ak ñom yan âge ñoo fay dugg xalé yi fu ñuy joggé conditions yi ñuy nekk euh, ban période la ñu a quitter pouponnière bi comment assurer le suivi quels sont les besoins et loolu soxna femme mi tok daf ñu don jox information yu complète yo xamné ça nous a permis ñu tek un plan bo xamné certainement sama sister Marie-Jeanne très impliqué, dina si dellu si kanam mais en fait globalement fi le mbir mi jógee et Yakarna naa du fi yam parce que amna ño xamné ñu ngi xaar bu baax si yeneen ñuy def ci kanam pour jàppale xale yi et comme ni ma koy waxé chaque fois au delà que xale yi ni nekké des sénégalais ñu nekk sen yaay dëkk Sénégal c'est des citoyens du monde qui méritent le meilleur. deug la deug la euh, wax di euh, kàddu gi rafet Aïcha et vraiment euh, je tiens à saluer sen sen doxalin bi ngeen def ak initiative bi ngeen jël té xaru len ci kenn ba yaatal ko ba tay jii sax mo indi waxtaan bi ni parce que. defe naa euh, lu baax lu ku nekk di def rek euh, loo ko gën a yaatal rek mu gën a yemb mu gën a rafet te surtout ñuy wax ci lu wàllu euh, aar ay tout tànk ñogal seen dund jàppale leen surtout ci ñuy jóge ci ay famille yoo xam ne dañu am ay jafe-jafe Fama Diaw bu nga xam ne moom la ñu dénk bërëb boobu xaw ma ndax mi ngi en ligne parce que dañu doon am quelque jafe-jafe femme est-ce que yaa ngi ñuy dégg ñun dégguñu la femme allo dafa mel na micro ma euh, ubbiwu ko wala ñu ngi lay gis wante wante dégguñu la euh, Régie peut-être soo ñu euh, la connexion bi ak euh, madame Diaw ca Kaolack ma enchaîner ak Marie-Jeanne entre-temps comme euh, waxtu bi moom dafay rek Marie-Jeanne ma ñëw ci yow yow yow en tant que présidente Mougib yaa un peu piloté Ben wàll ci au-delà de li Aïcha son sœur Aïcha expliqué dafa am beneen pas jël vous êtes passer à une vitesse supérieure est-ce que tu peux nous expliquer un peu yow euh, au-delà de don collecte bi ak yooyu l'olen na leneen loo euh, pour d'appeler la pouponnière Wow, effectivement andé euh, Astou maa ngi lay remercier waat opportunité bi nga ñu jox ñu a wone suñu projet bi nga xam ne moom la ñu am pour pouponnière bi euh, parce que comme ni ko ñëpp xamee rek euh, y a beaucoup de gens yoo xam ne dañuy joxe ay dons ñëpp a ngi euh, di ñu koy xee saxati di joxe li ñu mën pour pouponnière marché mais dafa am yo xamné pour à long terme amuñu chance bu bari pour mu réussir donc comme ni ñu koy waxé sank amna na ñoo xam ñu ngi xëccoonte ni nekk nijaay xale yi ñi nek bàjjenu xalé yi ñu on a pensé aussi que amna na ñoo xamné dañu bëgg nek nekk xalé yi mm-hmm. donc pour pour ñëpp ñu satisfaire ñëpp on a pensé à créer un document de de parrainage bo xamné euh xalé euh, képp ko xamné gis nga né li vraiment war nañ ci mën a euh, euh suñu président ba paré jappalé ci xalé yi nga xamné ñoy avenir du Sénégal euh vraiment ñu jox leen opportunité pour ñom ñu mëna def lo affaire à long euh parrainage bi à long terme à long donc euh,

Euh, financièrement euh, pour nous mun a euh, nek un bon citoyen du Sénégal. Mhm. donc Marie Jeanne beaucoup ma bëgguma la mais si je comprends bien en fait il da a da ngeen au delà de l'appui financier l'appui en en dons et tout da ne lii war plus loin. ngeen ñëw pour apporter le soutien bo xamné peut-être douglet gis peut-être ci ci walu acte de bienfaisance et tout au Sénégal moy apporter un, un, un appui logistique bon ramener c'est plus en termes de lan gungé euh, du ju rafet yi jàppale bi pour que mon nek lo xam ne lu pérenne la parce que dafa am lo xam ne dafa am souvent acte yi ni ñi ba dinañu dimbalé mais souvent dañuy dem ba ben instant day am euh, euh déperdition des dons ñu daan joxé dootuñu mën a joxé wala dara légui yeen da ngeen ñëw pour am ben appui euh, euh, disons même numérique si je peux dire ça comme ça boo ramener ne permettre que appui bi ak fu mu mënti jógee mu à long terme est-ce que tu peux nous venir en détail sur sur ça waaw euh, ma sœur merci nga nga yóbbu ma ci euh, côté boobu parce que parrainage bi dañ ko jumelé en même temps ak benn website boo xam ne mm-hmm. suñu frère Zak comme d'habitude moom moo ñu ci jàppale tegal ñu website boo xam vraiment ku ci euh, yow am jox nañ la option ci nan nga mën a aider xale yi mhm. euh, après parrainage bi parrainage bi c'est à long terme engagement à long terme euh, ñi nga xam ne dañu nekk ci kii boo xam ne situation boo xam ne duñu mën a nekk duñu mën a engagé wu à long terme ñoom dañ leen di jox opportunité ñu mun a ñu mun a joxe lépp lu ñu am

ku sax dégluwul émission bi te xam website bi rek euh, euh, di nga gis ne que euh, def nañ on a tout préparé pour que que tu puisses venir et participer à ce projet donc vraiment loolu ñu ci remercier sax bu baax te c'est c'est très complet c'est pas compliqué à lire et donc lépp lu ci bëgg def rek jox nañ la option yi pour nga def ko voilà donc euh, euh, euh, kii boobu non website boobu non dinañu aider pour que buñ ko vulgariser ci monde bi yépp ñepp dinañu mëna dugg directement fi ñu nekk xol li ñuy def jappalé ñu voilà donc mu ngi noonu jox nañu leen option bu yépp non ci mm. website bi et on remercie Zach vraiment de passage parce que c'est ça a été fait dans un long court court délai et donc ñu ko ci remercier bu baaxa baaxa baax mais ouais c'est ça et puis ma bëgg a wax tamit Régis su ma afficher adresse ou euh, euh, site web pour ni fa pendant qu'on est en ligne sous ko défiler peut-être ci ou écran bi euh, c'est intéressant parce que en fait je suis un peu impressionnée par tout ce travail là que vous avez fait ñëwal un peu sur qu'est-ce que ça a pris comme comme comme apport technique et autres pour euh, monter ce site web là pas euh, ligue, parce que définitivement, malheureusement ma impressionné ce projet mais c'est que ça va au-delà de juste faire un don Djokéli, euh, ou wala vraiment vous avez poussé la réflexion à aller ça à un niveau est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ce que ça a pris comme comme comme réflexion comme temps de travail comme technique et tout pour monter ce site ce site web là et le rendre euh, convivial pour que Nini, pour nous ñu et puis sécuritaire aussi parce que gisna bini défilé défiler page bi tu peux payer directement par carte est-ce que amna par exemple pour ñu nek Sénégal beug par Wave ou Orange Money est-ce que jàppandal bobu tamit amna na ci waaw euh, tout a été prévu quand même ci euh, ci biir website euh, bi mun nga dem via link yi ñu la jox Sénégal possibilité ñu la jox Sénégal pour nga fay bu fekkee ne Sénégal ngay fayee mhm. loolu ça a été prévu ça a été prévu dans le dans le site bu fekkee tu es à l'international ça a été prévu dans le site mhm. donc mun nga dugg ku nekk mun na dugg dugal kartam c'est c'était un peu technique donc moo tax ñu jox ko suñu jàmbaar boobu mu nekk Zak nga xam ne moom lu bëri moom ñu koy moo ñu koy defaral et donc d'après man bi ma ko vraiment il a fait un bon boulot parce que ko a affaire euh, document parrainage et donc sur ça il s'est basé mais c'est une réponse à une demande je crois que c'est une demande qui est vraiment une, une demande euh, ils ont besoin, ils ont euh, envie de faire, ils ont envie d'aller. Et tout le monde, de toute façon, nous, nous, passifs, mais il y a beaucoup de gens qui ont fay C'est qui qui yenn pour pour nous, mm-hmm. Mais nit nous, comme mun gën a faciliter dañ ko pour faciliter ñoom aide pour participer au programme bi donc li euh, defe naa ne bu ñu ci li bañu bañu taxawal ko ba damu taxaw euh, euh, comment madame Diaw dotul am diñu texte diñu wax ne que supply li nga xamné mom mo fo lañu la xalé ñu soxla mhm, mhm. parce que loolu tamit daf leen di yombal liggéey bi parce que pour tout le temps di ñëw ils savent que là il y a des des des rentrées qui viennent régulièrement et puis mom ñom sax dina leen yombalal gestion wu seeni finances et ça je trouve ça vraiment c'est c'est extraordinaire réflexion bi ngeen dugal ci euh, euh, euh, dimbale leen au au au delà même de ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer d'habitude au delà du don financier mais liggéeyal leen benn site web tabaxal leen ko gérel leen ko et puis def ci lépp li nga xam ne mooy yombalal nga xam ne ku nekk ak foo mënti nekk ci àddina damay rappelé tamit ne que lii du rek mbiru Pastef

euh, dellu si je savais je sais qu'elle avait quelques problèmes techniques foofu ak seen euh, connexion mais on aurait vraiment voulu euh, l'avoir mu waxal ñu ci gémmiñam euh, liggéey bi ñuy def foofu soxna si est-ce que y a ñuy dégg soxna Fama ah. Diaw yaa ngi ñuy dégg dafa mel dégguñu euh, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait voulu l'entendre. Nous euh, continuons, continuer. le temps nous gère. Marie-Jeanne est-ce que dafa am loo ci Oui, dama ci aussi euh, comme travail on a mhm. fait une petite enquête pour savoir par exemple xale Ben xale ñaata lay soxla. Euh, pour ñu toppatoo ko parce que déjà boo buggee ñëw nit ki ne ko dooma jëlal engagement nga jàppale benn xale il faut nga xam yow ne xale yi xale bi de quoi il a besoin mm-hmm. donc euh, avec l'aide de madame Diaw on a su que euh, xale bu nekk 60 dollars par mois lay soxla

parce que si ñëpp xam nañ ne que bu fekkee ne pouponnière wu euh, Kaolack bi nous on a un un ñu ko sax un lien sentimental. une relation sentimentale parce que suñu président bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñu bëgg moom la ñuy jàppale moom foofu dafa am kii donc mais on pense quand même à élargir ça. Euh, que Soufekene Nini, ils ont bien répondu à l'appel, que nous pouvons élargir ça à d'autres pouponnières du Sénégal. Exactement. Parce que nous que pour euh, mm-hmm. la fondation de Degarou, nous avons une fondation de moom mooy xale xale bu dëgëree xale bu mm-hmm. ko fondation bu euh, donc moom moo mun a moom tax mooy mun a tax dëkk avancé donc bëgg nañu investir vraiment ci kaw ci mm-hmm. xale yi Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Modèle outil, Aïcha, euh, un peu, comme euh, on n'arrive pas à avoir euh, euh Madame Fama Diaw. yow xam nga tuuti c'est ça ci ci pépinière bi dafa am sank lu ma dégg ci documentaire bi ñu ne xalé yi dañ fay nekk ba 2 ans sama sama sama fait un peu tiquer comment xalé yi pour jusqu'à 2 ans ñu fay euh est-ce que mën nga ñu expliquer un peu euh, cette euh, limitation bobu ñu def ci euh, séjour wu xale yi jusqu'à jusqu'à deux ans ce micro Aïcha voilà merci Astou xam naa suñu amone Fama dina baax est-ce que est-ce que y a ñuy dégg Fama ouais dafa a vraiment problème euh, avec le son wa hein. allo. waaw ñu ngi lay allo. waaw connexion bi Sénégal mooy Lolo <laughs> euh, euh, c'est très imprévisible euh, on fait de notre mieux mais des fois sous connexion yi stable dafay indi euh, quelques jafe-jafe te ñu ci euh, jégalu bu baax wante bon Aïcha ñu dellu ci ci qu'on kon nga waxal ñu un peu détail c'est ça limitation ou d'âge wu xale yi merci Astou euh, c'est une question bo xamné ñun sax soulever nañ ko parce que bu ñu né 2 ans xalé bi day génn centre bi da ngay xama ñewal ta xalé yi parce que ñepp xam nañ né 0 ba 5 ans l'enfant est très vulnérable mm-hmm. et que bu ñu sañon xalé bi dañ koy yor ba mu gëna dëgeur ba nga xam sax bu xifé dina mëne xifna lu koy metti mu wax mu mëna au moins au moins am li nga xam bu ko yégué dina ko mëna a yégal adulte yi ñu xam ko donc ça a été notre question ñu ne ñu euh, dañ fay dugg ñu ci bari nouveau-né lañuy duggé ñu génn à l'âge de 2 ans et ceci est lié à la capacité d'accueil donc ñi nga xam ne am nañu deux ans bu ñu génn du ñu mën jël yenen xalé parce que ñi koy expliquer ci vidéo bi né dañuy jël euh, nouveau-né yi muy yan xale muy xale yi nga xamante ni seen yaay dafa am feebar xel parce que parfois on voit des dames yu ko am ñu abuser leen du xam sax moy niñ koy waxé et ñoo xamné dañ leen am ba pay seen yaay génn aduna du am ñoo xamné ne dinañ mën assurer li nga xamné moy mooy yar xale yi ki nu mu doon toppatoo leen ba ñu génn ci période bu délicat bobu délicat bobu du moins donc tout ça ñooñu la ñuy boole indi ce qui fait que xalé bi buy dem del 2 ans ils sont obligés de libérer cet enfant pour donner la chance à un autre enfant un autre bébé buy ñëw parce que ki am 2 ans mën nañu wax né il moo tane ki nga xam mi ngi judd. d'où vraiment l'importance de pouvoir élargir la capacité de la pouponnière pour que si nous suñ ko suñu mm-hmm. capacité dinañu garder les yi un peu plus longtemps au moins peut-être que nous dépasser l'âge critique bobu, qui est 5 ans 0 à 5 ans nous avons nekk ci xale yi la du am feebar yu mm-hmm. donc euh, c'est important à savoir ma vous poser une question par rapport à ni fa xalé yi di ñëwé est-ce que bon nit moy dañuy for xalé ci biti indi fa wala famille mo fa indi xalé ban et puis tamit ban euh, est-ce que pouponnière bi amna ben je sais pas mon accréditation ban légitimité en fait lañu am di mëna a yor fofu ay xalé est-ce que c'est encadré euh, d'une façon ou d'une autre par l'État wala c'est juste ñom ñoo di jël seen initiative bu bop di def loolu sont-ils euh, ont-ils un cadre juridique quoi bo xamné ci lañuy ñuy xam nga sànq mi ngi koy wax sax si euh, si élément bi nee na benn ONG espagnol mhm. ay bénévole ñoo ko ubbi woon pour jël xale yi nekk situation difficulté mais ñëpp xam nañ ne depuis la crise européenne ba léegi ñooñu mënatuñu mëtale li nga xam ne moom lañ doon dox au départ d' ailleurs bi mu waxee loolu rek man daf ma interpellé directement je me suis senti un peu indexé dama ne mais pourquoi des étrangers ils viennent faire ça chez nous et buñ ko defee bëttale pourquoi pas ñun ñu mën koo yeggali comme dooruñu ko woon donc là est toute la responsabilité de tous les Sénégalais qui sont interpellés pour ñoom mais aussi pour d'autres centres de ce genre yi nga xam il y a des nécessités qui sont là parce qu'il y en a un peu partout au Sénégal donc ñoom dinañu jël par exemple bu forêt, foree xale bu ñu foree nous, nu ñuy def ku ko war jël souvent ils pensent à la pouponnière ne ko fa bu jéem a xaat li ci topp naka lañ koy defee xat nit dina dem di am doom yàlla jël bakkenam bu ñu xamul fuñ ko yóbbu ñoom ñoo koy accueillir et je pense qu'il arrive même parfois nous am ñoo xam proposer d'une communauté faute de capacité d'accueil donc une situation est difficile de faire xaw daw yaram man bu et ça a été la question que j'ai posée et ça me permet de revenir un peu sur les sur les deux ans après d'ailleurs Marie-Jeanne mi ngi wax que si affaire euh, programme ou parrainage parce que notre question c'était bu ne peut pas le retenir dans la pouponnière par faute de place parce que dañu accueillir yeneen plus vulnérables est-ce que dans le cadre du parrainage xale bi boko topoto toppatooy ba mu am ay deux ans ba génn est-ce que mënoo assurer suivi bi besoin xale bi quelle que soit famille d'accueil bi mu nek mm-hmm. manam xale bi au minimum euh, bu fekké ni kiko yor mi ngi koy jox mu lek diko topoto toppatoo bi jangam ding ko assurer topoto ko ay fourniture am euh, bu vacance jotee li nga xam ne xale bi dafa war a bég comme ay moromam nga jox ko cadeau bu anniversaire am jotee nga bégal ko bu feet jotee lu tabaski korité bu dee xale boo xam ne du jullitit bu seen feet jotee dinga nga ko mën a solo bégal xale bi ba nga xam ne waajur bi mu ñàkk du ko yëg bu baax a baax a baax parce que day am ñi nga xam ne ñu ngi koy toppatoo di ko jox affection et amour am ñoo xam ne yàlla may na leen moyen ñu bëggoon nekk si wetam mënuñoo nekk moom ñoo ngi maanaam fu sori waaye seen loxo dina dugg si xale boobu donc je pense que si si dynamique c'est la ñu élargissement bi nga xamné Marie-Jeanne donne euh, expliquer sank mm-hmm. mais dama bëggoon quand même euh, répondre ma ci question ou euh, cadre juridique parce que tamit ça permet aussi de rassurer ñi mm-hmm. fay que le le la pouponnière est quand même réglementée état bi elle est enregistrée et tout ça nga nga ma lolu ci non xam nañ leen xam mhm, mhm. parce que aussi je pense que c'est l'une des questions bi nga xam ne suñu technicien bi demandé na ko bi muy ubbi site bi donc euh, euh, logo bi un euh, rapport avec l'État tout ce qu'il faut numéro de téléphone def les images qui doivent qui doivent y figurer tout ce qu'il faut il a dem na gëstu ko seet ko nga et puis en relation avec parce que soxna femmes, mi nga xam ne moom mooy directrice bi dafa am ay collaborateurs mhm. am ay collaborateurs yoo ils sont dans l'ombre mais c'est déjà gens yi nga xam toutes les informations yi nga gis ci site bi mhm. euh, c'est des informations yoo xam ne ñoom ñoo ko yoroon mais bi ñu waree ubbi site bi dañ ñu jox ils nous ont donné l'historique euh, complète. Ils nous ont donné la liste de tous les enfants qui sont passés par là et ont donné une liste ça les quelques pertes d'une femme. Donc, c'est des mhm. gens qui nous ont donné les informations mhm. euh, sur la demande de notre technicien. Il faut demander tout ce qui est légal. Nous pour simplement vous dire que c'est une structure qui est en bonne et due forme. ONG, je suis en et de faire des choses. Donc, da ngay mhm. bul ragal parce mhm. que site bi buñ ko ubbee aussi dinañ ko def en plusieurs langues aussi pour ki nek euh, ki dégg anglais dina mën dugg et à l'international comme ni Marie-Jeanne waxé légui surtout à l'international parce que nit ñi xam nañu bitim réew am na ñoo xam ne bala ñoo duggal seen xaalis fenn dañuy dem dugg site bi xol lépp ba mu doy leen du ne rek Aïcha mo la woon la dañuy def don ak yoy donc cadre bi nga xam ne dañ ko créer site bi nga xam ne dañ ko ubbi dina permettre ki nek Japon Chine Angleterre ak fu mu nek bu duggé bëgg joxé

Euh, tey je pense que bi may lire tamit ci document wu pouponnière bi j'ai vu que xalé yi tamit donte am na ñu ñu fay indi ñoo xam ne peut-être seen seen seen ni parents dañuy euh, seen yaay dafa génn àdduna wala seen seen seen njaboot dañu jógee xaw a xaw a seen loxo jotul seen ginnaaw mais que ce sont des des enfants en fait yoo xam ne euh, dañ leen placer foofu dans un cadre juridique hein c'est ce sont des ordonnances de de de de de tribunaux qui accordent tamit la la la garde de ces enfants là à la pouponnière. Hein, d'où, d'où, defe naa tamit c'est important euh, de le savoir Modèle aussi euh, un petit ci euh, marijane avec côté parrainage bi li li Aïcha Touré wax sànq ci xale yi nga xam parrainage bi dafa ñëw pour gunge xale au-delà de deux ans parce que à deux ans malheureusement, dañu war génn ci ci pouponnière parce que je crois que la pouponnière a euh, 50 si je me souviens bien. Donc, capacité de 50 enfants néonotropes quand on sait demande bi euh, euh, Sénégal et puis euh, ci région Bobo. donc Marie-Jeanne soit nous bëgg un petit vraiment li parrainage bi lan parrainage bi pour accompagner ces enfants là au moins au-delà de 5 ans ba familles, que famille yi nga xamné ne suñu fa génnee fa lañuy dem ñooñu tamit mën a am lu ñu taxawee euh, xale yi pour que ñu bañ a juste du jour au lendemain li ñu tàmmoon wala euh, lekk biñ daan lekk mu am lu ci euh, lu ci sooxe. ton micro Marie-Jeanne. waaw loolu la ñu xalaat vraiment moo tax ñu def parrainage pour pour benn suivi bu gën a gudd. que mhm. deux ans yi. parce que deux ans yi ba tey xam nañu aussi que xale bi ba tey dafa dafa dafa faible.

pour mu après deux ans deux ans à partir de deux ans sorti les lay gën a commencé di am yo xam ne da koo soxla mm-hmm. donc moo tax aussi ñu tegaat ñu teg parrainage bi pour que nit ñi à long terme nous a suivre xale yi ah ba saa ko comme ni Aïcha wax rek euh, y a des moments yo xam c'est des moments yo xam il faut que nga yónnee ponctuel parce que xale bi affaire u la mais am yo yoo aussi ça peut être de temps en temps muy cadeau yeeg affaire yo yëpp non. Euh, mais nécessité yi au moins li nga xam ne moom la xale bi soxla que ñu mun ko euh, toppatoo couvrir ko au moins pour les pour les premiers cinq ans pour xalé bi mun a mu taxaw bu baax baax. Mhm. ñu né au moins euh, dina mëna continuer life sans pour autant mu am ay gàllankoor. Ah, voilà deug deug merci merci beaucoup Marie-Jeanne ma ñëw légui ci euh, ci Fatou Diawara euh, yaa ngi xaar booba tey maa ngi lay jégalu tuuti ci ci xaar bu yag bi donc Fatou ma bàyyi la voilà gi wala est-ce que yang may dégg Fatou. waaw maa ngi. voilà <laughs> ñu lay jàmm ci plateau bi. dëgg maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi jégalu ci retard bi tuuti. di rafetlu taxawaay bi. Mhm. ci opportunité yi ñu jox aussi pour ñu wax si pouponnière bi ak action sociale yi ñuy def fii euh, États-Unis par rapport ak euh, pouponnière bi maa ngi nu suñu jàmbaari moom mooy suñu euh, communicatrice bi moom mooy bu USA moom mooy Aïcha. ak euh, suñu présidente bi ak yow mi euh, di oste kii bi nu mu plateau bi ak ñi ñi ma bokkal plateau bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen naan daal lii moom initiative moom bu baax la sombu euh, suubu nañ ci te vraiment décidé nañu engagé comme Ousmane suñu président Ousmane Sonko nu ci engagé pour ñu gunge xale yooyu parce que boo xoolee ñun avant avant ñu nekk sax affaire politique bi sax ay yaay lañu te xale yooyu bu ñu xoolee milieu yu ñu jógee donc euh, loolu de leen di wan rek da ngeen war a jàppale xale yooyu pour ñu am même chance que ñi am ndey am baay ñi am ñi leen jàppale aussi ñu gunge leen ba ñu màgg te xam naa ne l'essentiel a été dit mais je vais tout simplement résumer ne leen ni vraiment outil de travail ñu fi teg pour ñu accompagner euh, projet boobu yu am solo la loolu dafa gën a yaatal euh, xol yi gën a yaatal aussi mën-mëni parce que ñu fiy dugg dañuy bëri du doon ñoom rek xam nga àdduna bi lépp ñëpp lañ fi dugal léegi seen loxo ku ci bëgg bokk rek dañ ci bëgg a bokk pour nga ànd ci projet bi ñu gunge xale yooyu dimbale leen ñoom aussi may chance mun a màgg ñu mun a doon deneen parce que on ne xale yooyu suba mun nañ mun nañ ci am président de la république mun nañ ci am ay njiit mun nañ ci am lu ne donc euh, waruñu leen négliger donc euh, loolu lu rafet la te rafet lu naa ko bu baax te ñun aussi aux États-Unis ñu ngi fiy def liggéey bu baax grâce à nos Linguère la xam nga donc euh, fas yéene wu ñu taxaw daal parce que ay yaay lañu te dañoo fas yéene bu ñu def la yooyu ba fu même bu deux ans yi passé système bu parrainage bi aussi duñu saluer la loo xam ne deux ans yi sax su passé di ñu continuer di parrainer xale bi on sait jamais mun nañ ko parrainer ba mu dem ba ba université ba mu jàng ba mu pare étude mi mhm, loolu yëpp projet en vue la mhm. te yàlla baax na te xol yaa ngi ci biir te xam naa ni moom dinañ ca jot incha allah jërëjëf maa ngi lay jërëjëf euh, Fatou Diawara yi rafet na taxawaay bi tamit mm. rafetlu nañ ko bu baax ma dem léegi euh, ci Eva Diagne Eva ñu ngi lay déglu nga joxe sa contribution tamit euh, ci initiative bu rafet bi bu Mojib États-Unis salaamaaleykum salaam dalal ak jàmm maa leen di nuyu di leen gërëm ci émission bi di nuyu sama sœur yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di ñu ñëpp di leen ziare voilà pépinière bi man la Awa Diagne Pastef euh, Italie euh, ñun euh, man ak Daba ñoo yor social bi ñoom mën naa wax ne mbiru pépinière bi ñu ñoo ko ñu ñoo koy suivre ci ci wàllu Pastef Italie disons depuis lors Daba mën naa wax ne ak Sophie Diatta Ndiaye ak ak keneen ak keneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir Pastef euh, Italie ñoom ñoo commencé woon euh, liggéey bi di suivre pouponnière bi jusqu'à présent et ba ma ñëw fekk si leen euh, ci ci ñaari at yi taxawaay bi nag mu doon taxawaay boo xam ne ma koy rafetlu li nga xam ne yéen waa waa Amérique yéen def ngeen ko muy Euh, le fait que site bi ngeen defar mu doon site lu am am important parce que euh, depuis loolu amu foo mhm. parce que nit ñi dañ daan dem di joxe du ñu xam xaalis bi fan lay euh, fi xaalis fan lay fan foofu lay dugg mais eh, mu leer mu lu leer dafa am solo surtout bu ko bu ñëpp bu ñun ñëpp buñ ko bokkee. Mhm. surtout que tey jàppandal bi le fait de xëy na dootoo amati di dem ba foofu. sur place pour joxe mën nga joxe ak fépp foo mënti nekk. Mhm. defe naa loolu moo ci avantage bi. effectivement. Mhm. léegi mu nekk loo xam ne sax yow boo joxee mois bi mois bi di ñëw di nga am euh, lu la rappeler ne yow euh, war nga euh, am na lu la war daal parce que mhm. xam nga situation suñu fii Europe en Europe dafa métti en si diaspora bi dafa métti te yu bëri dina da nga koy fàtte te lii dafa am solo ma leen remercier ci liggéey bi ngeen def muy liggéey bu rafet bu may rafet lu bu baax a baax ñun nag ñun waa Pastef Italie li ñu engagé. moy engagement euh, tabaxal euh, xale yi bi defar ko mm-hmm. parce que actuellement bu euh, ne loyer bi dañ koy fay te président mo engagé wu di loyer à la fin am sœur patriote la aji parce Suisse may terrain c'est juste madame Diaw Eh, mën ko leeral tamit boor boobu dina ma dinaa ko dinaa ci kontaan eh, mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu bu baax a baax ñun ñu jël engagement bi bëgg a jël terrain boobu tabaxal ci xale yi ëllëg comme ça ñooñu dootuñu amati chargé loyer parce que loyer bi je eh, sunu présent moo koy fay actuellement ba pare si bu si je me courant bi ak gaz bi ku ñuy wax attends monsieur Serigne euh, euh, bu parce que en tout cas charge charge charge. y a l'électricité, il y a le téléphone il y a toutes les autres charges qui viennent avec yo très en charge donc très bien. Alors, affaire bi mhm. très bien euh, déjà avec charge loyer bi loyer bi dina doon lu am solo euh té e, lén mako don wax ak euh mako bëgg wax tudu sax ci élargir parce que rek dafa actuellement ñu koy suivre parce que na mois d'août mhm. fekkon fa situation bo xamné muy situation santé e, e, bi madame Diaw vraiment mu nekk situation boo xam ne c'est santé bi daal dafa précarier précaire euh, man en personne en personne comme comme nit rek dug euh, taxaw ma fa comme Pastef Italie en tant que Awa Diagne Eva ma jël en charge euh, xale bi comme ne damay essayer bu ma bu nekkee baax na bu nekkul rek yàlla rek moo xam daal Mhm. léegi nag euh, lu mbir moomu fu mu nekk nii ci lañ nekk ñu ngi koy dox pour indi xale bi fi faj ko. mu nekk loo xam ne vraiment euh, du cas boobu rek moo fa nekk. lii dama koy wax comme sax ñun bu ñu xool rek affaire xaalis bi nañ xool tamit santé xale yi ñi nga xam ne mën nañ leen indi en Europe toppatoo leen faj leen parce que am na situation yoo xam ne mu euh, problème santé yoo xam ne mënuñu koo faj au Sénégal mm. Europe rek nga ko mën a ngeen leen lañ leen mën a indi. toppatoo leen te lii tamit ma bëgg ci euh, euh, bàyyi xel nga ma bëgg ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp ñi nga xam ne ñun ñoo nekk en Europe bu ñu amee possibilité indi xale indi xale yi nga xam ne dañoo am difficulté faju au Sénégal loolu moom dinaa ci kontaan trop. ma leen di remercier yéen ñëpp. ci seen taxawaay merci beaucoup merci beaucoup Awa. Euh, ñu ngi lay jaajëfal te seen taxawaay vraiment defe naa ça sert d'exemple pour ñëpp te jaadu na ñu fësal def euh, yi nga xam ne euh, euh, membre non seulement bëgguma sax wax Pastef mais li on le fait en tant que citoyen parce que ku nekk xëy na balaa ngaa dugg Pastef sax yaa ngi doon dox ci ci delloo askan gi ci ci ci defal askan wi dafa ne rek lépp dafa ñëw tombe yemb ñu koy def mais euh, seen seen taxawaay rafet na euh, te di ñaan yàlla yàlla fulal leen ko te mottali yéene bi ngeen ci am ba kër googu ngeen taxaw ngir euh, yëkkati ba keroog waa pouponnière Lamine Coulibaly dootuñu amati di am xelu kan mooy fay wala est-ce que euh, lii ñëw dina dugg et tout ñu mën a am seen këru bopp boo xam ne ñoo koy moomal seen bopp te loyer bi teggeeku leen ba ñu mën a jël xëy na euh, euh, ressources yooyu dugal ko ci mën a élargir seen capacité yokk xale yi yi ñu mën a jël en charge et puis yaatal euh, ndimbal bi loolu c'est c'est extra et puis ñu ngi ciy woo ñëpp sénégalais ak foo mun munti nekk di nga jàpp ci liggéey boobu ba kër googu mën a yëkkatiku ci lu mu euh, gën a gaawee euh, ma dellu si am nañu beneen gan bu nekk ci ci plateau bi ma jox ko kàddu gi soxna si. daba daba daba.

Eh, dama yéex a yëg nag eh, que ni dañoo waroon dugg sànq eh, comme instant yi maa ngi Sénégal dañoo nekkoon <laughs> ci benn meeting pour taxawu suñu sœur Khadija Maykor Diouf. dëgg la ah, dëgg nag message bi am solo pour diaspora bi nañ ko jàppale bu baax a baax. Mm-hmm. gannaaw yàlla dañu yaakaar ci moom. pour mu jël mairie yi golf bi incha allahu rabbi donc mu ngi jàpp moo ngi jaajëfal lingeeru diaspora bi yëpp rawatina suñu mbokk lingeer yi comme ko waxee. wa nak eh, deglu na sen wax amna solo di nuyu aisha aisha Touré mhm. Jeanne eh, ak suñu benen bi ak soxna Eva wa di len jaajeufal sànq gisone na fi madame jaw suma djoumou mhm. mais directrice Popaña bi wa deug la dafa am mhm. ko soxna Eva waxee rek suñu yéene comme nako soxna Eva waxee ñun dañu amone yene moy defe na ni euh, ñepp yëg nañ ko ni dafa am suñu benn mbokk patriote bu yëkkati terrain fofu ca lak bu tuddu Aji Ndaw bi dund Suisse may ko xalé yi nga xamanteni ni ñoo ngi yeeroo ñoo ngi yéwo ci ko pépinière bi nekk Kaolack pour xalé am seen kër bop comme ni ngeen ko xamé suñu leader président Ousmane Sonko tous les mois mo ngi jël ci salaire yu député di fayal xalé yooyu comme ni ngeen ko xamé rek wér ak wér dafa jege té bu doon suñu sago ñun ñëpp xalé yi dañu am seen kër bop donc euh, ci projet bobu lañu nekkon pour xol dal naka lañu def ba mbokk yi taxaw ci ñu tabaxal xalé yi kër googu nga xamanteni ni yéne nañ leen ko Ah, defe naa projet bi bañ ci yàggee bañ ci commencé wax sax depuis ça maintenant un an et quelque mais xama rek nekkoon ci ay kayit pour ay yoo xamante ne ni patriote bi nañ ci war a mën a jàpp ndax dañoo war a tëddal loo xamante ne ni pour mën a tukki exemple bu Pastef Italie benn comme si ama awa nga baal ma lu ñu waroon tijji loo xamante ni c'est apolitique damay fàtte tur bi association bu apolitique pour nga xamante ne ni patriote bi nañ ci war a mën a jàpp pour mën a daal tous mois ñuy joxe ah euh, loo xamante ni niñ ci mën a war a mën a dajale pour tabax pouponnière boobu ñoo ngi ki déggoon naa aussi suñu sœur Awa di wax euh, aussi euh, ci kii ah, xale bi nga xamante ne war nañ ko indi ñoo ngi ciy woo waa pouponnière bi nekk Kaolack ci mel ni madame Diaw maa ngi koy nuyu au passage pour daal ñu mën ci war a mën a taxaw ndax daanaka kayit yëpp yemb na ah li ci desati daal daanaka bëriwul ndax suñu yéene moo xale boobu nga xamante ne ni dafa am problème euh, pour mu ñëw Italie ñu xool naka lañ kay mën a taxawoo daal gannaaw yàlla mi ñu yaakaar daal yaakaar nañ ñu ne suñu mbokk yëpp dinañ ci taxaw bu ñu ñu ñaanal suñu doom yi ndax defe naa ni ñëpp xam nañ ne xale ku ci sa sago di nga nekk ak sa ndaay mais comme niñ ko waxee moom moo moo mën lépp daal nañu jël xale yooyu def ko comme suñu ay doom rek mm-hmm. donc ab suñu leader defe naa gannaaw yàlla ak moom moo tax ñu xam pouponnière Lamine Coulibaly di jaajëfal madame Diaw ci liggéey bi ki nga xamante ne ni moo ngi koy def ak waa pouponnière bi nekk foofu yëpp waa ñi nga xamante ne ni ñoo yor pouponnière Lamine Coulibaly bi di leen jaajëfal yéen ñëpp bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf euh, notre sœur euh, di leen jaajëfal ci seen taxawaay te di la euh, yóbbante nuyoo sunu sœur bi nekk foofu soxna Khadija ñu ngi koy nuyu di ko di ko di ko renfort di ko dooleel te di ko ñaanal yàlla li mu sumb yàlla may ndam pour moom ak waa gox ba jërëjëf Daba Daba Sène ah, dafa mel na sunu sœur femme d'elle j'espère que cette fois-ci c'est pour la bonne euh, Femme, Diaw est-ce que y a une idée, micro Ce micro dans le Allô? Allô? voilà <laughs> waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal di la di la euh, nuyu di la accueillir ci plateau bi donc euh, mala la doon euh, ñu wax rapidement rek comme xamuñu connexion bi ndax dina yàgg donc nga ñëwal ñu rek tuuti ci pouponnière bi ak liggéey bi nga fay def ak xale yi ngeen fa yi ngeen fay toppatoo nga ñëwal ñu ci tuuti ak tamit liggéey bi nga xam ne waa waa Mojib ñu ngi koy liggéey foofu ci jàppale waaw pouponnière bi euh, mi ngi ubbee depuis avril 2011 xale yi fi yor mooy xale yi nga xam ne seen i dañu génn seen papa yi doole ba leen li nga ne seen yaay dañu am febaru xel euh, moy ngeen balma ci wax di dofi nek ci si mbedd mi ñu leen di ëmbal noonu ak xalé yi nga xam dañ leena sanni même dañ fi accueillir xalé yi nga xam dañuy ñak yaay dañuy ñak papa kon xalé yoy lañu yor di leen ci ci si ñaar la lu bari Euh, maa ngi déggoon sànq mu rëcc ma ngeen di laajte pourquoi ñu yem si deux ans euh, dañu yem deux ans pouponnière la euh, ndaxte 18 mois sax xale dafay génn ndaxte pouponnière yaakaar naa ne bu xale bu fa nekkee ba am 18 mois war na xelam war na naaj ci war na yokku te bu doonee toogee si pouponnière bi dafay def yi fi xale xelam du yokku xelam du du naaj ci daal gën a gën a kii du. la dëgg yéeg si kaw daal. ba looloo tax ñu koy génne si 18 mois léeg-léeg nag mu am xale yoo xam ne dañuy am feebar boo xam ne dañ leen di ba deux ans même am na xale bu ñu xam ne am na fi 4 ans soog a dem kooku dafa amul woon ku ko adopté mu doon bébé boo xam ne xale bu ñu sànni la ñu for ko mm-hmm. amuñu ku ko adopté toog na fi am ba 4 ans ñu soog adopté mais bu ñu sañoon ñun comme ni ngeen ko waxee si biir wax yi rek comme ñu sañoon foyer ba nga xam ne xale bi su ole su génnee pouponnière rek day dem si foyer bi nga xam ne euh, am nañ tabax bi ah dafa mel na euh, affaire bi malheureusement on était bien parti euh, Fama Diaw ca pouponnière euh, Lamine koulibali, bi nekk ca Euh, euh, taxoon un peu ñu teg plateau bi booba tey ñu ngi koy jéem a am foofu ca kaw Kaolack wante bu mu jokkoo bi dafa xaw a am ay jafe-jafe ñu ci euh, jéggalu bu baax sax wante heureusement sunu sœurs yi sunu lingeeru Mojib États-Unis ñu ngi ak man ñoom defe naa imprégné nañu bu baax ci liggéey bi pouponnière bi di def ba mën ñu ko Euh, t'es te tamit seetaan ngeen élément vidéo bi ñu leen tegaloon sànq boo xam ne vraiment euh, femme Diaw ñëw na ci en long et en large sur fonctionnement au pouponnière bi Femme dellu si nga est-ce que yaa ngi ñuy dégg. voilà c'est ça donc euh, nga continuer fi nga fi nga yemoon. Mm-hmm, waaw ma ne looloo tax ñuy yem si deux ans mais bu ñu sañoon moom pouponnière bi dafay yaatu yaatu boo xam ne dinañ téye xale ba am mais loolu yëpp doole ak place bu yaatu ak euh, am foote xale yooyu moo koy moo mooy tax ñu mën a toll foofu mais fi ñu toll nii xam ngeen local bi yaatuwul te ay pouponnière la euh, moo tax ñu yem dix huit mois ba deux ans daal

tabax ka mm-hmm. lu ñu neexee nga xam ne dinañ am comme ni ma ko waxee dinañ am place panier dinañ am place foyer mais nag fi ñu toll euh, loolu mooy premier besoin am suñu localu bopp mais su loolu weesoo tamit seen xale yi su boo demee ba yor panier yoo xale li ñu gën a soxla mooy meew meew premier âge deuxième âge troisième âge ndax xale bu juddoo ba am 6 mois ñàkk yaay xam ngeen ne kooku meew rek nàmp te meew bi doon na loo xam ne 24 heures sur 24 xale bi moom lay nàmp ba am mois kon meew boobu doon na besoin principal après bi nga xam ne xale bi mënu ko ñàkk suñ paree meew yi nga ñëw si céréales yi ndax au delà de 6 mois di nga yokk céréales pour xale bi gën a dëgër si li muy lekk kon ak eau minérale bi mm-hmm. dëgg la donc euh, non le ko euh, besoin yi xale am ci walu besoin yi ñu am tamit euh, ci wàllu dëkkuwaay bi ñu nek nga dañ koy loué euh, jot na ñu mëna am seen kër bop bo dootu ñu am di fay loyer loolu yëpp nek lo xam tay loho, am na ño ne ci seen loxo di leen wante dañu bëgg a japandalbi. yaatal jappandal bi que ñëpp. ak foo mënti nekk sénégalais wala nekkoo sénégalais sax lii daw sa yaram ba nga bëgg ci jàpp euh, nga ñëw mën a jaar ci site web boobu waa euh, sunu jigéenu Pastef yi nekk États-Unis bu ñu créer pour yombalal ko pour que ku nekk ak foo mënti nekk ci àddina soo amee sa carte wala nga mën nga nekk Sénégal mën a jaar par euh, dépôt d'argent yi nga xam ne xam nañ leen foofu Sénégal nga mën a di dugal sa xaalis te do am pour sax déplacé wu ba euh mu gëna yombal euh, yëf yi euh, dafa melna euh, Fama Diaw donc euh, on l'a encore perdu malheureusement bon c'est les aléas de de du direct avec le Sénégal di ñaan yàlla connexion bi foofu gën a mën ngir ñu ñoŋal liggéey bi ñuy def di mën a di fësal euh, lépp li nga xam ne euh, ñu ngi koy def foofu te ñu war koo euh, wane ci àddina bi ba ñëpp mën si teg seen bët wala ñu mën si jàpp Aïcha wala Marie-Jeanne est-ce que am na dara loo lañ ci bëgg a le temps xëy na Fama Diaw mën a duggaat na Euh, wa man de euh, kii bi bi muy wax ni nu mu koy waxee saxati euh, madame Diaw mu wax nii. Mm-hmm. la patriote de de de Italie bi mu waxee nga gis ne que ñaari idées yi convergé mm-hmm. nga xam ne rek da ngay kontaan daal gis ne que nit ñi ñu ngi toog di xalaat nan la ñu mën a améliorer lii nii. Mm-hmm. dafa jox sentiment de da am achievement da xam ne yow daal vraiment ci li nga nekk lu dëgg la daal vraiment. Ah, waaye Italie ñu ngi xalaat xalaat tabax kër.

te loolu defe naa su wax dëkk tamit richesse bi c'est c'est la richesse c'est la c'est la les ressources humaines moy xel li ñu mëna bolé ngir xalaat bo xamné da fay jëriñ askan wi mm. donc euh, ñu leen ci euh, remercier bu baax ba pare di ci wo ñëpp di si ku ku nekk euh, ndax affaire bi du du alal rek boo ciy def mais tamit ay xalaat la yoo xam ne day tax jëf yi jëf sur le terrain di mën a di gën a jàppandal di di di mën di gën a pérenniser wu dans le temps pour que mu bañ a nekk loo xam ne da nga koy def benn yoon rek te njëriñ bi du mën a du mën a law euh, Aïcha euh, est-ce que am na loo ci bëgg a yokk. non ah, Astou xanaa di la di la remercier bu baax te li ma ciy dolli rek mooy toujours damay xool.

rawatina xale yi nga xam ne ay tout tank lañu ils n'ont pas demandé à net mais yàlla moo def ñu judd dans ces conditions donc tout le monde est interpellé maintenant bu ñu toogee ba ay ONG ñoo xam ne bitim réew la nekk nekk ñu si dëkk bi ñëw door liggéey bi yaakaar naa ne ñun jaadu na et war na mën a yomb war nañ leen xajal suñu wërsëg gunge leen ba xale yegg fi ñu war a yegg euh, sans que je disais tout à l'heure que ces enfants même au delà que ñu nekk ay doomu Sénégal c'est des citoyens du monde le monde est devenu un village et que xale bi Sénégal kenn xamul ku muy c'est comme aujourd'hui il y a des gens qui sont nés au Japon qui sont en train de rendre service au Sénégal ñu ngi faj ay nit un Américain il est en train de soigner des gens en Europe donc ces enfants là xam naa ne xalaat la ONG yi di am fondation yi di parce que c'est des citoyens qui xam ne les et que nous sommes interpellés en tant qu'humains. au-delà même de la au-delà de formation politique nous sommes interpellés en tant qu'humains. quand l'idée de créer site bi dafa ñëw dama encore parce que dafa gën a yaatal mbir D'autres dootul nekk ci affaire communauté sénégalaise communautés nekk ci affaire parti politique mais dafay nekk loo xam c'est ouvert à travers le monde parce que nous xam nañ ne dëkku tubaab yi ñu koo il y a des enfants nécessité dans mon pays l'une ñu lay laaj fan la mën dem visiter loolu muy ay jumtuwaay yo xam ño ñoo 21e siècle bi motax ñuy remercier au passage Zach mi nga xam ne créé na ko ko suñu loxo mais ñuy remercier au passage l'équipe qui s'est rendue sur place pour fessel mbir mi yaa koy wax sank Aminata euh, ñu ngi koy wax ablay mais également Maimouna Dièye mi nga xam da fay jouer rôle de relais entre ñun diaspora bi ñoo dem ak moom mi nek Sénégal mu fay am taxawaay bu rafet aussi donc loolu la bëggoon ajouter di ñaax nit ñi comme femme appel bi mu lancé xeebuñu dara et puis tout à l'heure dina je pense que am na numéro bi ñuy joxe ku nek ko xamné ne amuloo li nga xamné en espèce mëno dem visiter on reçoit des dons en nature té boobaa numéro téléphone Fatou Diawara moy bi nga xamné mom ngay ñuy jot bu ñu jotee Fatou Diawara yooyu yëpp mi ngi si euh, website bi buñ ko jotee dinañu xam fan lañ koy def ak dëkk bu mu mën nekk si àdduna bi parce que je pense que tu dis jox la yeggale teranga bu yegg Sénégal war nañoo yomb. et on est en train de s'organiser pour mm-hmm. faire ça mais yow aussi ken demul nga dess ñoo lay remercier bu baax. jërëjëf Aïcha ma jox cadeau gi euh, monsieur Diop depuis le Sénégal euh, bu bëgg intervenir monsieur Diop est-ce que. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. madame Aïcha man la ablay Diop coordinateur pouponnière Lamine Koulibaly y faire une intervention seulement pour parler un peu ce cadre juridique de mhm. pouponnière bi. ça a été créé par la euh, fondation espagnole avec difficulté au niveau de l'Europe maintenu sur pouponnière à 100 depuis lors une bonne volonté comme ñoo ñu soutenir si bi de passage ñu leen di remercier ñëpp di leen sant yàlla ne leen yàlla yokk bu ngeen yëkk ñëpp bon question bi may répondre mooy euh, xale bi ni muy def bu si bi mhm. bi du moom mooy choisir xale moom mooy ay xale yi tribunal des enfants moo leen placer au niveau de la pouponnière parce que bi avant de la pouponnière dafa rapport envoyé le président tribunal tribunal bu placer placé enfant à la pouponnière non la bi ci pouponnière bon recevoir ay yu Tamba. Kaffrine Fatick même am nañu xale yoo xamante côté gab Gambie yooyu luy di ñew yooyu yépp il faut nga am ordonnance de garde ordonnance de garde provisoire bobu mom la ñuy téye xalé bi bu deux ans su deux ans yi li ñuy def modification d'ordonnance de garde modification d'ordonnance de garde des fois ah, les parents les parents de l'enfant, du dañu bëgg jëlaat seen xale ñun dañu si sonn sax pour ñu jël seen xale. Hmm. dañuy ñëw ne ñoom dañu bëgg seen xale yi yóbbu au niveau du village SOS pour suivi bi continuer foofu. des fois aussi vraiment avec le président du tribunal des enfants il est tellement compréhensif ñu yóbbu xale yi foofu après village SOS continuer xale yi hmm. Non la xale di ñëw quoi xale bu duggee mu ngi par ordonnance de garde buy génn aussi. Oui, effectivement, jërëjëf, monsieur Diop. Je pense que c'était important de faire cette précision-là. Voilà. Mhm. Nous l'avons modification d'ordonnance de garde les filles mmh. Toujours tribunal, toujours tribunal. Parce que nous, on ne prend pas d'enfants sans l'ordonnance du tribunal. Mhm. Wassalam dëgg la dëgg la merci beaucoup euh, monsieur Diop Défendre précision Bobo. c'était euh, c'était important de le faire pour que Nini ñi que c'est ça pouponnière bi du moom mooy ñëw rek jóg jël ay xale war di dugal di et que euh, xale une fait placer en fait c'est des c'est c'est c'est après une ordonnance du tribunal ci ben ligue bu tribunal pour enfants di def foofu.

ma jëlu de wax dëgg yàlla réseau bi mooy euh, déconné rek des fois fu nekk maa ngi fiy déplacé pour mu neex sax. mais xam nga on te mhm. bu baax. Aïcha ñu ngi lay ñu waaw ma ñëw si li ma waaw ma ma ñëw si li nga doon wax rek mooy li nga doon wax pour li nga xam ne moom laa gën a soxla. Mhm. Euh, wax naa si problème mu kër gi wax si problème mu lekk gi parce que ku yor xale xam ne warul ñàkk lekk. lekk gi nag moom comme zéro à dix-huit la wala ba deux ans c'est des riz céréales dinañ soxla sax mm-hmm. ay ceeb ay diwlin parce que am na foo xam ne bu ñu amee dix mois dinañ leen toggal yenn togg yi nga xam ne yooyu boo xësee am dix mois rek dañ koy togg di ko mixé ba nga xam ne suñu si tamit besoin yi ñu gën a soxla mooy médicament ko xam xale xam ne xale day wéri di surtout ñi seen mm-hmm. yaay gaañu ñi seen yaay am feebaru xel feebar bi leen jàpp leen bu xale bi kon médicament tamit dañ koy soxla pour xalé yo nek ci bonne condition su xalé bi nekké ba su faju ba ba ba ba mu nek ci fu set kon dañuy mm-hmm. soxla produit d'entretien ay koy ay ñom seen malade ñom seen ordisel pour bërëb bi xalé yi nekk mën set bañ gëna gën a nekk si wér gi yaram bu ñu mm-hmm. paree loolu tamit dañuy soxla ay jus parce que xalé bu bu lekké ba sour faju ba wér fi mu nekk pour mëna bañ santé li nga xamné moko manké plus de na xale bi wér na xale bi lekk bu suur loolu moom mooy li nga xam ne bu ñu sañoon du ñu ko manqué si pouponnière bi dëgg la euh, et puis euh, Fama bëggoon naa di nga ñëw tuuti balaa ñuy euh, dar émission bi c'est ça maa ngi lay dégg dama bëggoon tamit nga wax ma tuuti ci ñiy toppatoo xale yi foofu ban ñan ñoo leen di toppatoo dégg naa sànq ci documentaire bi nga wax ne que am na ay babysitter donc ay gardienne est-ce que dafa am tamit ay ñoo xam ne pouponnière bi da leen di ay liggéey pouponnière bi la ñuy liggéeyal ñu leen di fay est-ce que ñi fa nekk ñëpp ay bénévole lañu wala am na ñoo xam ne tamit dañ leen di fay ak tamit ñi fa nekk est-ce que au-delà de bénévole yi am na ñoo xam ne am nañu formation ci petite enfance nu ñuy toppatee toppatoowee xale di leen aar am na suivi ñoom bu ñuy def pour que seen seen liggéey gën a mucc ay sachant que ci ay xale yu ndaw ci ay liir lañuy ñuy liggéeyee. waaw xam nga pouponnière bi ñi fi nekk di fi liggéey ay bu ma yeboone la euh, kenn ku nekk quartier nga jógee di déplacé wu di ñëw ñëw fii di fi yendu neuf heures ci ngoon nga bàyyi njabootam këram yàlla am na si ñoo xam ne dañ leen di jox ndax duñ ko tuddee fay parce que du salaire loo xam ne rek dañ koy teg seen loxo ñu mën di ko paasee di ko mën a ñëwee di ñëw fii di toppatoo xale si biir loolu am na si ñoo xam ne ñoom it bokkuñu si ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox transport mais dañuy ñëw pour jàppale ñi jàppale boobu ne dañuy ñëw di jàppale ñi nga xam ne ñoo fixé mais ñooñu tamit noonu la oowee ay bénévole ñooñu tamit dañ leen di jàppale des fois soo amee dara neexal leen ndax dañuy paas di ñëw di def la bénévolat euh, te lu xale yi tamit ñi leen di toppatoo xam nga uffe nga nekk si bonne condition bàyyi sa kër baax nga mën a ñëw toppatoo xale yi euh, yéen may dégg. waaw ñu ngi lay dégg vas mhm. mën nga continuer. allo. waaw dégg bu baax. waaw moo tax duma ma ko tuddee moo tax duma ko tuddee fay koy tuddee euh, genre seen loxo ndaxte ba espagnol yi ubbee yore cent pour cent sage bannière bi xañ na am espagnol yi mënatuñu am boo xam ne mën nañu assurer lu ñu soxla yépp tey ginnaaw yàlla bon volonté association yeeg diaspora beeg ñooñu ñooñuy jàppale ba toppatoo xale yi te li ñuy njëkk mooy lekk xale bi mooy njëkk ñu dañu ñëw pour liggéey si xale yi dañu ñëw pour jàppale xale yi ñun li ñuy gën a jiital xale bi na am lekk boobu doy na faju ba doy na am lépp bu ñu paree nag li si des soo ko def dara euh, li nga xam ne moom la babysitter yi euh, teg seen loxo yi mm-hmm.

xaw ma sant Ndiaye wala ban sant la def voilà donc ñu koy euh, jaajëfal bu baax vraiment euh, euh, man personnellement je suis très impressionnée sama sama sama xol sax <laughs> dafa xaw a tooy sax parce que vraiment dévouement bi ma gis ci madame Diaw ak ñi mu nekkal foofu di travailler de façon bénévole

té jafé jafé yi seen waajur nek nekk ñi nga xam ne seen seen i yaay dañu génn aduna bi ñuy juddu ak ñeneen ñi nga xam ne ay jafé jafé wala ñu nek ay jigéen ñu wérul donc euh, ñun ñëpp dañ ci am responsabilité nous sommes tous concernés kon ku nek war na mëna ci def dara budul fi di feneen wante xam nañ ne que soxla bi euh, vraiment bari na Sénégal té ñun ñëpp dañ ci am responsabilité euh Aïcha euh, Marie-Jeanne Awa xamna naa ñu ngi jege si fin wu émission bi euh, vraiment, euh, man, euh, je suis admirative devant vous. te xam naa ne que ci émission bi ñun ñii tamit nga xam ne xëy na xamuñu woon lépp lu doon wàllu pouponnière bi ñun tamit dinañu jóg takk suñu sër dugal ci suñu loxo ak fu ñu mënti nekk te li xam naa ne ku ci def defal ay jirim defal ay néew di doole le lo xamné lu yalla gërëm la lu yalla ful la te defena naa Sénégal daf ci euh, euh, rek mën jëm kanam ma bàyyi len euh, sama sœur yi c'est Linguère brave Linguère ku nekk joxé ce dernier mot bala ñuy tecc émission bi te di len jaajëfal di leen yëkëti ba ci kaw vraiment euh ñu ñu jara sargal ngeen ak euh, yéen ak ñeneen ñi nekk ci ginnaaw ñoo xam ne xamuñu leen may ñi sur place euh, di leen euh, di vraiment rafetlu ma parole bi ngeen tàggoo dernier mot peut-être Awa Diagne fële ca Italie sa micro. waaw asu eh, maa ngi kontaan eh, ci liggéey bi eh, ci taxawaay bi di kontaan ci plateau bi bu baax a baax ci ni mu déroulé vraiment di tamit di remercier ñi nga xam ne yéen ngi taxaw ci liggéeyu pouponnière bi di jàppale xale yi parce que wax dëgg yàlla li nekk loo xam ne sunu bokk lañ ko defal daal defal ñu ko xale yi parce que xale yi comme ni ko Aïcha waxee rek ñoom ñooy ñooy ëllëg monde bi pas à Sénégal monde bi mu nek lo xam lu ñu a euh, bàyyi xel la bu baax baax def ci li nga xam ne mën nañ ko sunu kentu lay kàttan tamit man may remercier sunu coordination bi les femmes euh, musique euh, passé Italie di remercier tamit sunu membre ñi nga xam ne ñoo nekk ci social passé Italie ak Daba Sène wi nga xam mom la andal di ci dox ak ñi andal ñun ñëpp di ci dox

di la sante di la gërëm di ko def euh, soxna Daba et teg ko seen loxo ngeen ko loxo wa Italie ak wa Europe mais aussi me remercier jigéenu passef États-Unis bi nga xamné dañu xër liggéey bi euh, les femmes yi nga xamné ñom ñoy représenter section au niveau du bureau famille ñom aussi comme ni ko Eva waxee sank dañu tak seen dig lepp lo xamné lu jëm le ci social na luy defar Sénégal elles sont toujours là prêtes à faire li def seen liguey vraiment japp si di la ñaax di la sox j'avais dit tout à l'heure au début que quand nous avons si euh, suñu allocution bi ñu né dinañ nek bàjjanu xalé yi j'ai été impressionné par seen engagement bi nga xamné dafa dépasser largement sama boss te ye bëgguñu fee yam dañu nous continuer en collaboration avec bien sûr l'Italie, Italie ñu ngi ni def liggéey bu rafet ak euh, Belgique ak Suisse France euh, kulim mais encore une fois nous devons remercier toute l'équipe de Jotna TV vraiment ils sont toujours là n'importe quelle heure, n'importe quel moment pour accompagner les initiatives. Ce n'est pas seulement pour le parti, mais c'est un exemple pour nous durer, pour Kouchinek, parce que am na ñoo ne nañ ne mënoon nañ ko def si suuf nañ ko mais nañ parce que ku xamul donc ne serait-ce que pour cette personne ñu fësal ko war na fa a kon aussi euh, lay bu baax et tout le monde merci beaucoup Aïcha Touré euh, mm-hmm. Marie-Jeanne

Euh, du ñu rek ñun ñoo fi nekk di def lii jigéen ñi taxaw nañu euh, ku nekk yaa ngi am loo xam ne def nga ko sa xool te bëgg nga ko euh, def et donc ñun énergie yooyu yëpp ñoom ñooy ñëw booloo pour mu nekk lii ñuy def nii ñu ngi yaan yàlla yàlla may ci ndam bu bëri bëri bëri bëri mm-hmm. mu atteindre ñëpp képp koo xam ne rek ne sax xol lii sa xol laal na sa xol rek nga ñëw jàpp lañu pour ñun li ñuy war bëgg a def pour xale yi parce que xale kat moom mooy avenir yu dëkk eh, te eh, bu bu buñ ko buñ ko defarulee ci ci ci kaw eh, defal ko ci suuf ci ci suuf defal ko ci kaw day yomb day day métti donc ñu ngi woo ñëpp ci initiative bi ñu jël nii ñu jàppale ñu ci ndax mu nekk une réussite totale jërëjëf euh, euh, Marie-Jeanne jërëjëf à vous euh, yéen ñi ma bokkaloon panel bi tey ngeen wuy si invitation wu l'invité du dimanche defe naa waxtaan bi amoon na njëriñ amoon na solo nit ñi gën nañu xam euh, Liguez bi ñuy def euh, en coulisse euh, ci walu social ci walu jàppale di pouponnière Lamine Coulibaly ba nek feulé t'É Kaolack té président Ousmane Sonko bu Pastef don l'En jàppale depuis 2017 de l'En jox le tiers de son de ses indemnités ca fële assemblée nationale de l'En ko jàppale ngir ñu fay sen loyer ngén ñu wax len tamit ci initiative bi ñu jël créer len site web bo xamné képp ak fépp fo mënti nek ci di nga mën di joxe ay contribution ça yu mu la sobé tok sa kër amulo di jóg di dem ba ca ca pouponnière ba donc site web bobu yéen a ngi gis euh, euh, adresse bi mi ngi euh, défilé au bas de l'écran ngeen jël ko en note ngeen partager ko comme ça ku nek légui amulo excuse pour di mën di di dem di joxe amna tamit Euh, programme de parrainage mën ngeen di parrainer ay xale di leen topp ba même suñu génnee ci euh, pouponnière bi à l'âge de deux ans ngeen mën a continuer di leen suivre di leen jàppale di jàppale seeni euh, waajur ak ñi leen di seeni njaboot ngir ñu mën a am Euh, enfance bo xamné euh dinañ leen euh, encadrer bu baax jox leen lépp lu ñu soxla pour que duñu manqué dara comme xalé yenen xalé yi nga xamné ñu ngi seeni loxo wajur ñu leen di toppatoo comme ni mu leen waxé donc adresse bi c'est www point pouponnière lc donc mi ngi défilé ngeen jël ko en note et ñu leen di xaar ci seeni euh, euh, euh, euh contribution te information bo leen soxla tamit mi ngi ci biir site bi koo leen war a contacter adresse pouponnière bi pour ñi nga xam ne dañu bëgg a yóbbu ay dons en nature ay couches ay meew ak euh, yeneen i euh, euh, jumtukaay yi nga xam ne dinañ ko soxla foofu di leen jaajëfal yéen ñëpp yi safoo émission bi ak Jotna TV et Jotna media di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen ñaanal jàmm ak salaam ba keroog ñuy gisewaat jërëjëf. Si vous êtes entrepreneur, nous vous invitons à découvrir un moyen efficace de toucher une large audience pour vendre vos produits ou services. Jotna Media Group met à votre disposition un service marketing digital de haut niveau en seulement quatre étapes. Une, Écrire un script adapté à votre business. Deux, Élaborer une voix off pour vous. 3. Monter une vidéo animée pour vous. 4. La partager sur toutes nos plateformes et cela à moindre coût. Alors PME, start e Startup, ne vous le faites pas raconter. Avec Jotna Media Group, développer son commerce, c'est plus qu'une garantie. Bienvenue à Papico Style, le style des hommes. Papico Style, le style des hommes. Des costumes de rêve, des pantalons de rêve, des tenues africaines, vestes africaines ah costume africain yi bar. fii costume africain rek ñëwal Papico Style. Papico Style bàyyiwul dara Papis Ben, jeune sénégalais bu am 25 ans ambitieux xarañ lu mu ñaw gongo te sur mesure sur mesure là la wax mais bu de ko bonnet bu ne ñëpp a yéemu boo ko solee dox ñu xam ni la sur mesure star yëpp moi, leen Massar mom lañu gëm ay chemise yu rafet ay chemise yu toj yu am classe ay création originale original bu la costume da nga nan Italie la jóge bu la costume da nga nan Paris lañ ko défaré woko ci 77 386 76 03 77 386 76 03 wala 76 294 30 47 Ken musta gis la Messieurs, dames de la diaspora africaine, vous aimez le Sénégal et souhaitez y investir dans l'immobilier Une bonne nouvelle pour vous. Notre agence immobilière Diaspora Humo vous propose de vous accompagner dans votre investissement, de l'achat de votre terrain à sa construction jusqu'à la remise des clés en main. Diaspora Humo met également à votre disposition une équipe d'experts fiscaux, d'architectes, d'ingénieurs en bâtiment et énergie, d'agents commerciaux et bref, la totale pour vous aider à réaliser vos rêves. Pour vous faciliter davantage vos projets, Diaspora Humo va plus loin par la mise en place de systèmes de financement participatif sous forme de tontine où vous vous engagerez à verser uniquement 250 euros par mois sans aucun intérêt. Waouh, un truc de fou! Notre agence bat la concurrence par la fiabilité, la sûreté, l'efficacité, la garantie et l'accessibilité. Alors, contactez-nous vite au 07 67 34 42 21 ou au 76 874 17 58. Vous pouvez également nous écrire par mail à l'adresse suivante contact@diasporaimmo.com ou visiter notre site diasporaimmobilier.com. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Diaspora Immo, votre agence immobilière de confiance. Si vous gérez une entreprise, start-up, PME, PMI, alors vous avez besoin d'une agence de marketing digital et c'est là qu'intervient le groupe Graphidev Communication qui s'engage à accompagner votre structure à travers ses nombreux services. Dans la création de votre logo, charte graphique ou identité visuelle, dans la conception de votre application web et mobile, d'un site web, e-commerce, vitrine, mais également dans vos photographies shooting, vos montages vidéo et animation et encore dans la création de contenu et gestion de vos réseaux sociaux. Qui dit mieux N'hésitez pas à nous contacter au 77 735 09 89 ou au 77 505 59 13 ou allez visiter notre site www.graphidev.com. Avec Graphidev, vous avez des ailes pour voler.